da nga koy sànni rek faire très attention sur euh, les mots ou les menaces que les gens profèrent sur les réseaux sociaux ndax mën na revers de la médaille mën na ca daal di am donc euh, di ñaan laat may mun a Ndour fay vraiment prompt rétablissement yàlla fëgg boppam ba mën a dellusiwaat ci euh, njabootam ak liggéeyam donc su amee ku bëgg a bokk ci waxtaan wi na def 77 810 90 90 77 810 90 90 mooy numéro bi may képp koo xam ne yaa ngi ñuy teewlu jamono ji nga mën a dugg en direct daal di euh, bokk ci waxtaan bi ma leen ne àjjuma jot nag ah mën nañu wax ni euh, antenne liber lay daal di nekk ku ci nekk yaa xool la la ëppal solo ci actualité bi moo xam loi d'amnistie bi la moo xam dialogue bu ñu jóge la moo xam date élection bi ñu wax ne ñaari fan ci weeru euh, join lañ ko programmé gum xaarandi décision bien sûr wala bi nga xam ne conseil constitutionnel dana ko dana ko daal di dana ko daal di firnde ndax loolu dana amam déet euh, donc euh, toute la semaine moom vraiment euh, amoon na actualité yu riche yoo xam ne jot naa am tey ajuma nag dañuy may ku ci nekk nga dabu la nga xamante ne rëccoon na la ci semaine bi 77 ngay woote su 810 90 90 77 810 90 90 daa nga mën a dugg en direct bokk ak ñun waxtaan wi sànq maa ngi ko doon wax naan jéggalu ci yéex tàmbali bi waaye nag xam naa ci kanam conférence de presse boo a suivre en direct en intégralité sur la sur Télé Sénégal xamante mouvement bi di Y'en a marre moo ko daal di amal ñoom itam doon jox euh, doon joxe seen xalaat ci euh, tolluwaay réew mi su nekk am na ko noppi rek ngir dugg jox ma ko ci 77 810 90 90 mbokk mi salaamaaleykum. asalaamaaleykum. Ibrahima na nga def. Jérôme. ziar naa la. ah nekkuñu ci jàmm de dañuy jéem <laughs> yaa kon yàlla yàlla euh, ah. wis jàmm ci ci réew mi yëpp. amin amin amin ndax moom soxla nañ ko soxla nañ ko. ah waaw waaw wax dëgg yàlla. yàlla mhm. xol yi non xol yee seddul rek. ah xol seddul moom bu xol yi seddul moom. Mhm. moom baaxul quoi. Mhm. kenn ci distance aussi vraiment. Sénégal foo mënti foo mënti dem rek sénégalais nga du mos a changé. te réew mi aussi lu fa la métti dina di la féliciter vraiment pour. Euh, qualité émission bi. merci beaucoup ñoo ko bokk. pour méthodologie euh, vraiment <laughs> man de man de mënuma koo def bu nekkoon may sa place moom wax dëgg yàlla benn eh. journée lay tenir quoi. da ngay déglu ñëpp jël sa temps. <laughs> Euh, xam nga ko mën pour loolu yëpp ah, di la ci remercier. merci beaucoup xalaat. merci beaucoup merci beaucoup damay commencer par seen euh, consoeur bi dëgg yàlla moom seen consoeur bi ma may mun a Ndour euh, Ndour Faye di mhm. di ko ñëpp man daf ma dama choqué dama yeewu rek gis gis kii bi nouvelle bi heureusement yàlla def na ci jàmm di ko ñaanal aussi euh, mhm. rétablissement bu gaaw mhm. Jérôme depuis quelque temps li ma constaté Sénégal depuis quelques années sax ay at li ma constaté Sénégal mooy boo boo waxee sa opinion mooy boo waxee sa opinion. Mm-hmm. bu arrangé benn leader yow noonu lañ lay jàppee te journalistes yi lañ koy def léegi damay gis ay journalistes yu ñuy harcelé sax ci chat bi ci réseaux sociaux yi aussi dañ leen di harcelé ah surtout Maïmouna Ndour Faye am na sax plainte bi ñu ko def bu koy menacé di ko def. day euh, d'ailleurs sànq sax euh, maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi Ibrahima nga baal ma sànq maa ngi dégg euh, ku ci mel ni Diop Taïf ci ab entretien boo xam ne doon na ko amal ak waa RFM mu ngi doon wax naan ñoom dañoo nakoon porter plainte la dame ginnaaw li nga xam ne moo fi jot a xew yëpp waxoon nañ ñoo bëgg a dem ca bureau procureur déposer plainte contre moom bon je sais pas ndax ndax loolu danañ ko defam déet mm-hmm. mais en moom annoncé na ko sànq ne ñoom dañoo fas yéenoon effectivement affaire bi bruit moo ngi circulé depuis quelque temps ne dañ ko bëgg porter plainte xaw ma daal xaw ma la wax man question la posé mm-hmm. mais est-ce que tu t'imagines naa ah, Sénégal yegg si yegg si si niveau bi mm-hmm. man damay gis ci chat bi ma xam nga dama bëgg xool chat bi mais da ngay ay kaddu bu ñaaw boo mën ci xalaat rek mm-hmm. gars yi dinañ ko bind gars yi ko teg ci seen der parce que wax nga loo xam ni arrangé mu seen leader man des fois damay xalaat est-ce que kii wala doomam buy xool lii lan lay xalaat. Mhm. te nekkul moom kese lañ ko def ah. parce que moom mhm. jigéen la te jàmbaar la aussi. Mhm. xam nga milieu presse bi non seulement ci wul quoi dafa métti aussi métti na pour yëpp mais pour jigéen ñi je pense que ñoom la rawee dem ba monter ce ce groupe de presse tey dañ lay dëkkal foo xam ne dëkkoo foo ji la wax loo xam ne mel ni la xam. man Sénégal moom boobu fan la jógee ak soxor boobu genre kiiwu soxor boobu fan la ah, fan la ñu xoolaat jikko yi vraiment kon ko faw ñu xoolaat jikko yi vraiment. si dafay yàqu complètement te nekkul euh, politicien yi ñoo ko yàq de góob moom loolu moo xam naa mhm. dinañ ci contribuer nag. Mhm. mais jeunesse boobu mooy indi lii xaw ma nag lu xew nag. Mhm. damay préféré maam bu nekkee am na bien. bëgguma teel a gaawtu nag. effectivement damay espérer enquêteurs yi wax. effectivement. jàpp mhm. aussi ñu ko def mhm. ci li mu gën a gaawee mhm. ci li may wax bëgguma nag nit ñi ki woo bon def ay euh, conclusion xaw ma lu xaw jiguma ko kenn jiguma ko benn camp constatation rek lay wax ay hypothèse lay teg lu ko effectivement li ko waral violence verbale bi ñu constaté notamment ci réseau ci les femmes les bon réseaux sociaux yi de parce que gars yi campagne lañ lay defal dafa mel ni en réseau dañuy nekk buñ la tëggalee campagne mais lu nekk ngay dégg. Mhm. di dugg sax ba ci sa vie privée des fois. Mhm. des fois dañuy dugg ba sa sa vie privée vraiment côté boobu moom c'est foog ñu wax ci ah foog ñu jub. Mhm. Sénégal aussi moom pàcc woowu moom après bëggoon naa wax aussi ci Amadou euh, Amadou Ba. Amadou Ba premier ministre parce que démb déggoon naa ko déggoon naa ko Saint-Louis. mu ne avec cent quatre vingt dix mille à cent cinquante mille francs. Sénégal de revenu mensuel mën nga ci vivre correctement. ku lool affaire bi choqué ma nag métti ma moom Amadou Ba. ah si si si j'avais j'avais pas bien entendu. loolu daal bi nga waxee man la ko wax loolu. Mhm. moo tax tey suba ñu ci bari ñu ci bari ñaaw la nañ kàddu googu parce que loolu quand même euh, ci kilifa gu mel ni moom moom tey jamono ji suñ ko doon fey quatre-vingt-dix mille wala wala cent mille dana xam ndax dana ci mën a ñëw ña bootam. mais eh, ñu ko dem di jaale en plus di jaale aussi vraiment xale yi ci euh, ñu ci décédé ci chavirement bateau di masawu seen famille. mais tout à tout à fait ci occasion loolu nga naan à cent cinquante mille francs mën nañu vivre correctement Sénégal loolu est ce que nit dina ko wax. li li moo tax boo yi aussi di leen saaga. te defe naa loolu moo gën a seetlu ci ñoom sax di leen saaga quoi. Mm-hmm. kenn mosu ko gis. dama mm-hmm. xaaral ma kii quoi merci merci beaucoup merci merci merci beaucoup jaajëfal ko bëgguma parce que bu ma continuer du baax jërëjëf merci merci merci merci merci beaucoup di euh, kontaan ci yow bu baax a baax Régis jox ma keneen ñu enchaîné 77 810 90 90 77 810 90 90 di numéro bi may képp ku ñuy seetaan nga mën a dugg en direct ci waxtaan moo xam appel direct wala appel whatsapp salaamaaleykum. na ngi fi rek. Euh, mais sëñ bi affaire Maimouna Ndour bi maa ngi soog a wax ci yam ci la ñuy teewlu. <coughs> mais sëñ bi am naa Pa Abdoulaye Touré. Mm-hmm. dóor ñu ko ba dàmb ko. Maimouna da koo gën. Mm-hmm. ana dàmbo ñu ngi tiire ko trente huit bal setal. Mm-hmm. Maimouna da koo gën. mais démb ñaata xale xale entre trente ans ñoo faatu ndax. xam ne ñaata xale ñoo fàtte woon bari ñi plus de cinq cent xale ñu ngi des ci géej gi dëkk bi ñu dëkk ay xale ñu ngi fii commune bi téye leen d'accord parce que tamit metti na lool mais ñu naan jigéen la ana mère Amidia sëriñ bi réew mi nañ bàyyi jël ñu am tur di leen teg ci prima pagine bi ñun ñi néew doole non sëñ bi sëñ bi allo alo alo allo sëñ bi sëñ bi nga baal ma sëñ bi sëñ bi nga baal ma sëñ bi nga baal ma sëñ bi sëñ bi waaw sëñ bi déglu ma sëñ bi sëñ bi sëñ bi nga baal ma ma ni ma ni sëñ bi sëñ bi sëñ bi pardon sëñ bi nga baal ma mais dama la nee sëñ bi sëñ bi yaa ngi may déggam allo allo waaw yaa ngi may dégg bismillah waaw. waaw ma ne il faut placer il faut placer chaque chose à son contexte xam nga tey ki nga xamante ne dafa jël gaal. jéem a euh, wuti wërsëgam biti réew kooku mënu ko tëkkale ki nga xamante ne dañ ko fekk ba këram attaqué ko sauvagement xam nga maanaam yëf yi il faut bu ñu def comparaison bu ñu def comparaison yoo xamante ne amu amu amuñu amu amu amuñu amuñu amuñu d'être ba su Dame Ndoye bañ ko ko defee fii nii dañ ko nakarlu ba ko nakarlu ba fu nakarlu yem journaliste bi ñu mbañoon barki Demba Ndiaye nakarlu nañ ko moom itam dara suñ ko dalee dañ koy nakarlu on est là